di del siwaat ci kartanal yàlla ni ma la ko dëhalee woon rek ci waxtaanu démb wi ci saraayaa yi sayduna muhammad yi sallallahu alayhi bañ xam le yonantu bi daj ci diina ji ndax ñi mën koo téye man koo gën a jëfee man cee gën a góorgóorlu gën koo taxawu gën koo taxawal gannaaw si gi baneen sariyatu ba yonantu bi noonu la yónnee yonantu bi yónni alam ibnil alam mooy xays ibnu saad qais ibn sa'd ibn ubadata mu jital ay fas handak armé bo xamné man ne mën nañ ñeenti téeméeri nit yonentoon ko yonni ci place bu ñu tuddé saddaa pour mu war leena ho ci diina ji def na lu rafet ci balaqa ittirat ittirat la maam khalifa def dana la ko wax nawon la al badia qais la yonni won ibn sa'd ibn tudd googu mu tudd ko ci ne Qays ibnu Saad ibnu Ubaada Samiyi loolu mooy iddi tiraat nga tudd nit ki tudd baayam tudd maamam loolu yombut moom la yonent bi yónni woon Qaysu mile bani Xasraj la bokk sahaaba la doomam di sahaaba muy ku tabe doomam di ku tabe yaman la ko yonent bi yónni woon ibnu Saad yu wax bi yonent bi bàyyi ko jaaraana ci la hebal délégation ngi jëm yaman mu yónni muhajir ibnu abi umayata ne nekko demal ma ca capitalu yaman ba di sanaa mu yónni ziyaad ibnu labit ne ko demal ma ca xadaral mawti ak ca saba mu yónni bu ko defee nag loolu la loolu la ko defee mu jëfa mu mu jël ku ñuy tuddee xaysu def ko mu nekk général mu jël drapeau bu weex jox ko ko waaye timit jëlaat beneen drapeau bu ñuul jox ko armée ba moo wa aqada lahu liwaan abyada wa dafa ilayhi raayatan sawda su ko defee nag askar ba départ man na ñeenti téeméeri jàmbaar ki jullit ña yonentu bi ne dem leen ngeen xoob xabilatu sadain ci diina ji buñ bañee ngeen xeex ak ñoom yaman lañ nekkoon Buxaari yu mu ne Sada benn famille la ci Yaman Sada lañ ko daan wax ibnu Harbin ibnu Hillata bañ koy romb su ko defee nag noonu la demee noonu la demee dem nañ ci wàllu Yaman fekk nañ fa Sada xabilatu booba foofa nag bañ xegsee fa haada sarihun annahum annahumul maqsuduuna maanaam xabilatu Sada ñoo tax a jug armée yonantu bi bañ demee nag men na mag wa ajaaba sayqan am na mag moo xam ne nangul na leen su ko defee nag lu ca mën a am saddaa iyu na ñoom lañ jagleel mbir mi Buxaari yooyu wax léegi nag ibnu yunus tamit wax na a bañ ñëwee mu ne ko dikkal naa la ak armée bi bu ko defee nag léegi ñëw nañ dikkal nañ leen xooleen ci diina lislaam bañ ñëwee seen délégation ba nekkoon nañ fukki góor ak juróom gannaaw fukki fan ak juróom lañ fa def ñoom ñu jébbalu luñ tontu dañ ne ko yow yonantu bi innaka mutaaxoon fii qawmika aa ah, ñi xamal ko ne ko yow daal kuñ topp nga ci seen nit ñi yaa aqa fa qaala bal allahu hadahum wa raja'u ila qawmihim fa fasa fihimul islaam bañ ñibbee ci seen nit ña lislaam siiw fa mu dikkal siyaat dikkal ci xajatul widaa ga téeméeri nit la ànd ak ci ñoom a ñooñu ñooy lenn ci bani mustaliq bu ko defee kon nag yonentu bi yoon na xaysu ibnu saad ibnu ubada su ko defee mu ànd ak lu man ñeenti téeméeri nit xabilatu sada moo leen tax a jóg waye ala kulli hal yàlla defal na len victoire mam khalifa ng koy portale ne kazaka mu ne kazaka ba'thul alami ibn alami qais ibn sa'd ibn ubadah ibn sami qais ibn sa'd ibn ubadah sami يقود قيلا وهي أربعمائة إلى صداء ثم ردت ذي الفئة إذ لنبينا زياد nabiyina zayadun idyanuhum suma ataw ba'da zaman gannaaw si ga na gannaaw sariyatu bi bim passé moy yónni gi yonantu bi yónni ahma al muta ci uyaynatum na xisnin ibni badrin mam khalifa bëgg lu ñu tuddé di tirat mu yónni ko ci uyayna ponkal moomu tam ñu topone ba muy dem juróom fukki nit la ànd ak waaye ñoo xam ne duhuñ muhaajirin duhuñ lansaar ñu dem ca bani tamim ca Sahara ba ba ñuy ñëw andi nañ xalal bari ci ay njafeel ak ay jigéen lu ko waral Uyaynatu bnu Hisnin ibnu Xusayfata ibnu Badrin ibnu Omar ibnu Juwayri ibnu Lawsaan ibnu Saxlabata ibnu Adiyi ibnu Fasaarata fasari la turam deug nak moy xusayfatu ñu koy dàkkantalee uyayna ndax dañ ko xaañoon liko ko liñ ko xaañoon ci bët bi muy xoolee genn wal bët di rop moo tax ñu koy tuddee uyayna mom nak jébbalu hon nak kérok fatu njëkk fatu makka la jébbalu lañ wax bokkon na ci ñi doon yonantu bi tap seen xol ya kérok xunay fekke na fatu ta fekke na xunay fekke na taif waaye dañ ne gannaaw si gi dafa murtat ànd ak kóllëre rek ba ni bakar waaye gannaaw si gi dellu siwaat na ci lislaam wa kaana fihi jafaul arab arab nekk na ci moom daal beccangal ak arab yi noonu loolu jikkoom la a ah, waqaa li imaamu shafii fi l ummi fi kitaabi rikaas anna omar qatalahu ala riddati boo demee ki téere bu ngi tuddeel ummu Omar Saafi yu mu ne bi murtatee Omar ibnu Xataaba ko rey isaaba mu ne walam ara man zakara zalika xayrahu téere yëpp nag isaaba mu ne moom kenn umu moom rek mu tudd wax jooju moo tax gars yi d'accorduñ ci fekkoon ne dafa nekkoon luñ mokkal duñ ko tudd ci benn téere li kon saaba yi dañ ko wax kon nag mu daal mu tuuboon na murtat gannaaw sigi tuubaat na moom Uyayna ibnu Hisn lu ca mën a xam yaxtamilu annahu umira bi qatlihi mën naa nekk yonent bi digal xomar pour mu ray ko ba koy avant xomar di ko ray mu gaaw tuub dugg ci diina ji ku gudd fan la dund ba sayduna ibnu Abdul Bari wax na loolu su ko defee nag a daqala ala Osman fa axlasa lahu mos naa ñëw sox soxla bëgg gis Ousmane ba mu ñëwee gis ko commencé xiisal di wax wax ñu tang ci kaw Uthman, qala lo Ousmane law kana Omar ma aqdamta alayhi man nga ñeme ngir li ma nooy bu doon Omar ibn Khattab do ko ñemee wax wax ji gamay wax di ko song kon nak bo demee ci tarjumatu tulayha tulayha ibn xuwaylit ci ummu téere la ah wax nako nena fa nonla non la non la mbiram demee dal ci ay mbiram am Omar am loolu la wax dal. وقع في الأم أم عمر قتل طليحة وعيينة وراجع ذلك جلال الدين البقيني فاستغبره جدا نينا دال تيري بابا وخني راينا آه، عمر راينا آه، ما نام عيينة راينا طليحة واي وقت جوج دال غاي داكورونشي برام قم قمي لوجا مانا هم دال ينون بيون نينا بني تميم wax naa la ko ki yonantu bi yónni woon mooy Qays ibnu Saad noonu la ko yónnee ci Bani Tamim ba ko yónnee ci Bani Tamim ibnu Hisham ak ci Hanbar mooy Omar ibnu Tamim ci palace bu ñuy tuddee Suqya ma ngi moom moom ak Juhfa ñoo xaw ñoo xaw a méngante daanaka mook Juhfa daal fukki maayil ak juróom-ñaar lay doon fofu moy suqyaa gogu moy suufu bani tamim ñew na fa di suufu bani tamim waaqid yu mu li waral yonantu bi yonne ñom banu tamim dañu lokki hon ci aw nit ci qusaa ba yonantu bi yonne ci ñom bisru ibnu abi sufyan al adwi al kalabiyu pour mu dem jappi sarax ya ñi téré ko sen tedd ngay alal ya dajale li nga ni hon nako a banu tamim nag jàllar bi ko nangu loola moo taxoon bi nag yónnee pour ñu dem jëflante ak ñoom wa qaaloo ma li haada yaqusu amwalukum minkum bil batil lu tax kii di jàpp seen xalal ci neen ñi bocc ci jaasiya xusaayu na yena ñun ay julit lañ ko defee kon nag ñoom wa haada amru diinina ba pare nag tamit yu na yenoom ne laa yasilu ila bahirin minha abadan kenn doxe ci suñ jëlem yi léegi nag ndaw loola yonent bi yónni woon mu ngi daw mu de ñëw ci yonent bi solo ko ko foofa nag ba mu ko waxee xibaar bi ci la xusaatu tëp départ pour dal ci kaw tamimi yi ne yi ah ci la leen wax ne keroog ne lawla qarabatukum ma wasaltum ila biladikum la yadqulanna alayna bala'un min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haythu ta'aradtum li rasulihi mune len de billahi bu taxuto nak jege ñaale gu dox seen ak ñun yeen duma len xamal dara yonentu bi dana dal ci seen kaw toroxtane gu rëy dal ci seen kaw yeen yeenay nangu asaka yi ndawal lu dagale hon ba dak ndawam la baxna waye nak ndaysan fa kharaju raji'ina ila biladihim fa qala sallallahu alayhi wasallam man li haulaai alqawmu fantadaba awalu nas ba bu ba yonentu bi na ñi ñoy ñaan rek ke ñeuk juk moy xoyena ibnu saadin mu lol mi ngi xew ci weeru muharram xatam juróom ñentel ca gaday ga yonent tubi yónni fa juróom fukki jambar ci arab yi waaye nag muhaajiriin yi bokkuñ ca wa lansar bokkuñ ca dañ daan dox beccëk dañ daan dox kon guddi di nëbbatu beccëk ci lañ ñew nak ba songu len ci place bu ñu tuddé Sahara su ko defee nak légui nak ñu jàllal bi ko euh, seen gitt yañ xamone yépp ñi ñi ñi ñi ñi nanguko ba nga xamee ne nag léegi nag fa lama raaw aljamaa wallu fa aqdau yeyna minhum ahada achara qaala burhan la arifuhum wa wajadu fi fi lmalaha ihda achara imraatan لا أعرفون وثلاثين سبيا لا أعرف أسماءهم ساد في العيون فجاء لبهم إلى المدينة فأمر بهم فحبسوا في دار أرملة بنت الحارسي léegi nag ba nga xamee ne gis nañ leen ñi ñëw lokki seen gétt ya bañ gisee seen mbooloo ma ñoom ñi taw xooyoy natu nag jàpp na ci ñoom fukk ak benn boo demee ci burhaan borom xam-xam bu mag la mu ne man xaw ma tur yi ñooña nag ñu fekk leen ci place bu ngi tuddee maliha ma maanaam place bu ngi tuddee malaha mahalla mahalla ñu fekk fa fukki jigéen ak benn burhaan mu ne fukki jigéen ñoo benn xaw ma leen ak fanweeri xale mu ne fanweeri xale yi xaw ma seen tur téere bu ñu tuddee yoon mu ne mu bijji leen indi leen Madina ñu tëj leen ci kër armalatu bintu xaaris kon sariyatu bi di sariyatu tabaarakallaahu subnu saadin noonu la demee xoon dem na ci sada ci bani tamimi yi na ya ak la ca xew waxoon la ko waaye nag sariyatu ahma muta muy oyenatu min xisnin moom la la maam xalifay wayal ni ne wa baasal ahma al amri oyenatu min xisnin ni badri yaqudu xamsiina min al axyaari gayri almuhaajirina wal ansaari ila bani tamimin bi sahraa'i fa rajacu bi sabi wa sariyatu آه. فوفدت وفودهم عن كثب وارتفعت أصواتهم عن النبي حتى إذا نادى المنادي بالصلاة وهم ينادون وراء الحجرات وثم في القرآن ما قد صنعوا ورد sabyuhum إليهم أجمعوا بوبو booy mooy beneen sariyatu la kon بوبو بوبو boobu di wafdu mooy gannaaw bi nga xamee ne mbiram usaara yooyu ñu jàpp jar-jar di fukk yi ma waxoon ñëw nañu ñi andi leen Madina boo demee ca taaj dafa ne fa qadima fi sha'ni usaara minhum ashratun jaam yooyu ñu jàppoon ci ñoom moo taxoon fukki nit ki seen kilifa ya dépare fële ca Taif ñëwal yonantu bi ca madinatul munawara ibnu ishaqa mu ne ba ñu ñëwee rakiba fihim wafdun min bani tamim hatta qadimu alayhi seen délégation ya ñoo ñëw ba xegsi ci yonantu bi ca madina seen delegation yëpp ay sang lañ rabiatu ca la bokk ibnu rafia subratum nu omar ca la bokk qaqaaxu ibnu maxbat ca bokk ba tey timit wardu ibnu muharis ca la bokk malik ibnu omar ca la bokk firas ibnu habis ca la bokk noonu lañ ko defee ñu nekk ay kilifa pour ñëw wax ak yonent bi ci prisonnier yi nga xam ne Uyaynatu jàpp na ko ci ñoom ak seeni jigéen ña lu ca mën a xam yegsi nañ ba ñu ñëwee aa aa nañ ñoom ba ni tamim ba ñu ñëwee nag ndeysaanam ñi yëkkati seen kàddu ya ca kaw joxuñ yonantu bi respect ñi commencé di wax ca kaw seen kàddu yooyu ñu doon wax ca kaw nag moom la alquran di wax bu yëkëté ci seen kaddu ci kanam yonentu bi ak bu leen wo yon ana Muhammad gennal Muhammad gennal diko ñaké ñàkkee sabri khan mom timit ci la bokku ci la ñu ñëwal yonentu bi sallallahu Alaihi Wasallam. bo démé imam tabari bu né ah tabari mu né annahu ihda ilayhi sallallahu Alaihi Wasallam thawba dibajin. yonentou bi mayon nako ben yére bo xamne yére bo lour la mu jël ko xoddee ko bayam kisra fa daqala ali asaabuhu fa qalu ma nasara alayka min as-sama fa qaala wama ta wama ta'jubuna min al manadili sa'd nu muaas fil janna khayrun min hadha waye nak non la deme ba ñewé ñu xéemu ñu ne ko waaw yow lu xew ni way manam malaaka yi di wacc ndaysanam moy dañ ci gañu sax du nu moxaas ga ñu ne nak gannaaw sigi nak atarid mom dafa murtad gannaaw bi ak ci banni tamim sa jaax doon ab yonantu la ñu ne gannaaw sigi ga na suma aslama wa huwa alqaa'il momu gi di wax wax ji adhat nabituna untha nadifun biha wa asbahat anbiyaullahi zukurana fa laxnatullahi rabbinnaasi kullihimu ala sujaahi waman bil kufri arwana moomu ji moom mi àndoon ak sa jaax mu gën a di ko xas ne rebbam yalla natal na dal ci kaw sa jaax mi ak mom mi nga xamne ne moo ñu sànkoon sabri xaan momu di ko siiw ibnu badar at tamimi turam modon husayn ni koy dakantale a sabri xaan ibnu badar dafa rafeton kharkharamam ba motax ñuko daan tuddé lola te lolu xam nga tur dafa bokku ci turi yi ngir rafetam ga waykat baa ngi koy tagg sax di wax naan tuddi ulahul manabiru xiina yarqa alayha mithla daw is sabriqaani ngir taaram ba ibnu sukayti ak kudul moom wax na ne moom a wax na ci téere bu ñu tuddee rawdu wa kaana yarfau lahu yurfaxu lahu baytun min hamaim wa siyaab kilifa gu mag la xoon loolu la ko yàlla defaloon su ko defee nag kon sabri xaan ak muhammir ak xuseynu ñett ñi ñëpp mujj nañ ñëw bokkoon ca délégation ba ibnu abdul bari mu sadaqaatu qawmi fa addaaha ila abi bakar fa aqarrahu suma ila amrin عمر وعمي وعاش إلى خلافة معاوية وقيل بعدها وأنه وفد إلى عبد الملك وقاد إليه xamsatan wa ashrina farsan su ko defee abu sidrata te mooy abu ayash moom ma lañ wax ne jébbalu na ibnu abdul bari mu ne moom lañ mbéngale woon saraxi nitam ña moo ko daan dajale di ko andil yonantu bi andil na ko sax aboubacar bi aboubacar ñëwee bako ca bi omar ibnu xataab tamit bako ca mujj gi dafa silmaxa mujj na ba xilaafaak muawiya gannaaw sigi mu ànd ak abdul malik ànd naak fukk ñaar fukk ak juróom ci ay jàmbaar bu ko defee nag jàmbaar ju nekk ci ñoom ñi koy askane ci ci baayam ak yaayam su ko defee ñi mujj ñëwal Abdul Malik moom tamit ñu mujj ñëwal ko Qays ibn Asim ibnu Sinaan Tamimiyu nii la seen mbir ya demee su ko defee nag ibnu Saad mu ne ibnu Rawiya ibnu Saad bi isnaadin hasanin mooy wax ci Qays ibnu Asim ibnu Sinaan mu ne ko xamoon xel la ku lewetoon la dañ ko daan roy moom sax a yuqtada bihi xarama xamra fil jahiliya xelam mu ray moo taxoon moom dafa xaraamaloon sàngara ci jamono jahiliya sax booba alquran wàccagut ngir xelam mu rafet ibnu saadu mu ne moom moo wax ne dikkal naa yonantu bi falama دنوت minhu قال هذا sayidu أهل الوبر ci la yonent bi kii mooy sangab waa wabar qaala omar li ahnaf mim man taallamta alxilma laaj na ko ne ko yow foo jàngee lewet mu ne ko maa ngi ko jàngee ci Qays ibnu Aasim gis naa ko uutiya bi rajulin maktuufin wa aaxaru maqtuul fa qiila haadha aqiika qatala ibnaka falta fata ila أخيه فقال يا ابن أخي بئس ما صنعت mu ne ko foo jàngee lewet mu ne ko ci xaysum nu asim toog na ñi andil ko ñaari góor kenn ki dafa silmaxa kenn ki dañ koo rey ñu ne ko kii moo rayoon sa doomi mbokk mi mu gestu jëm ci doomi mbokk ma ko def nga lu bon yow sama doomi mbokk bi sama sanata bakar nga ci sa borom dag nga ak mbokk sanni nga timit ci sa bopp ay fett alkande mu to wax timit li ibnin la dom doom dom je muneko ya ne bu a fawari aqika na nga sutural sa mbokk mi su ko makam kon ma xamne ki ku lewet la ndax boba xamna na mana fayu ta tuxut mu def ko muneko mangal jeme ci sa mangal jeme ci sa yaay temeri gelem def ko diye dem nga fayee leen ko ibnu hibaan wax na loolu kon moom ku baax la woon xamoon na fanweeri doom ak ñett la ko yàlla war sëgaloon mu wàcc basra basra googu la génnee àdduna ba mu deexee sax a abdatu ibnu ibnu tayib ma ngi koy marsiyaal ne alayka salaamullahi qaysu bni aasimin wa rahmatuhu ma shaa an yatarahama fa ma kaana qaysun halkahu halku wahidin walakin bunyaanu qawmin tahaddama ki ma mën a way mu ne ko jàmmi yàlla yàlla na nekk ci yow xaysu mi ak yërmandeem yow su fekkoon ne sa halku gi yow rek a dee muy jàmm waaye yow sa dee gi ñëpp a ci deexaale ndax li nga xen woon dafa rëy moo tax mu ne fa maa kaana xaysu fa maa kaana xaysun halkahu halka wahidin walakinnahu bunyaanu qawmin tahaddama kon wax naa la jaay jàmbaar yooyu nga xam ne dañoo mujj tuub ci yonent bi wax naa la Uyayna fa mujj wax naa la Qaysoo fa mujj maa ngi lay wax nag Aqra ibnu Habis Aqra ibnu Habis ñëwaloon na yonent bi fekkee na Fathu Makkata fekkee na Hunayn fekkee na Taayif bokkoon na ki ñi ñuy tàpp seen xol ya tuub na dugg ci lislaam rafetal na lislaamam ga teewee woon na yamamata xaree na tamit ak waa Xiraaq moo hubbi Anbar ànd ak ibnu Walid kon moom mbiram jeex na ibnu Durayd du wax na ne turam dëgg mooy Firaas waaye dañ ko wax Aqra ndax li qaraxin kaana bi rësi dañ ko xaañoon ci boppam bi moom nag ku tedd la koon ci jamonoy jaahili ak ci lislaam mi ngi génn àdduna keroog xareeb Xuraasaan ci jamonoy Seydina Usmaan ci lañ ko rey kon mbiram jeex na xaafis ne na jàng naa ci mbind moo xam ne imaamu Shaatibi moo ko wax mu ne ñu ngi ko rey keroog xaswatu Yarmuuk mu ànd ak doomam lañ reyaale ak moom yàlla xam ñaari wax yi ban moo ci jub ci jub imaamu Kalbi yu mu ne Aqra jaamukatu safara la woon njëkk muy tuub dugg ci lislaam waaye lu jamono daal moom tum na dugg ci l'islam ah mo jité won délégation ba ni tamim ba ah téwé na and ak yonantu bi ay xaré ibnu ishaq wax nako mune aqra ak huyaynatu ñom ñaar ñepp fekkee na ñetti euh ak ci yonantu bi bu ko défé timit ba délégation tamim ñëwé la ñëw ca buntu yonantu ba di wax di xoté ca kaw di johor yonantu bi muhammad gennal Muhammad génneel mel ni kuy wax ak sa morom ah bañ ko déggee nag ba leen biñ ba yonantu bi déggee xoote ba nag wa sama min waraya fa naadahu ya Muhammad lay ilayna ñi lor yonantu bi yonantu bi génn Bilaal taxawal julleeg tusubaar ah ñoom wa taallaqu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yukallimunahu ñu commencé nag aju ci yonantu bi taxaw di di ko wax ak moom pour mu jot seen njaboot googa ñu jàppoon moom laa la waxoon ci xare booba fa waqafa maahum suma madda gannaaw si gi yonent bi taxaw wax ak ñoom ci la yonent bi door a départ continuer julitu tisbaar mu toog nag ca biir jàkka ja ibnu ishaq mu ne ba ñëwee ñi wax yonent bi na ko ji nu faaxiruka fa addin a fa léegi li shaairina wa xatibina fali yafal fa qaala adantu li xatibikum ci la ñëwal yonent bi ne ko ñëw nañ di puukareexo ak yow hebal digalal suñu waykat bi ak suñ porte parole bi mu wax seen porte parole ba wax mooy Ataarit ibnu Hajib mu jug wax ku mën a wax la a wax wax joo xam ne tabaarakallah wax ju fasaha fasaha fasaha la fa qaala asantu li xatibikum fa qaddimu ñoom ñu jiital Ataarit ibnu Hajib fa qaama fa takallama wa xataba bañ waxee ba seen wax ji yeex ci la yonent bi digal Thabit ibnu Qays ibnu Shamaam ku fasaala kooka timit juk joxe discours bu rafet rafeta rafet ngi bokk ci kibaru sahaba yi bokon na yonentou bi dehalon nako hal jana fekke na xaswatu yamama leg su ko tamit mu wax fa ajabuhum fa qala fa qama fa qama ah, sabri ibnu badar Dadi juk def ben qasida bu rafet mu andonang ak ñoom sen délégation ba bañ paré yonentou bi digal hasan ne ko jugal nga def ab qasida ba ko defee nag xasaan def ab qasida ba mu sottalee nag ah ba qasida ba pare neexut ba neexut ñoom nag ñu dëggu lañ ñu ne waa neexut ba neexut yontu bi sa discours kat bi di sa porte parole bi kaddu yi mu wax moo gën a rafet suñ kaddu yi suñ suñ kaddu yi porte parole bi sa kat bi kaddu yi mu wax di xasaan di qasida bi moo gën a rafet fuuf suñ qasida bi neexul ba neexul nag waaye loolu daal moom xam na su ko defee nag bañ paree nag ndeysaanam ñu jébbalu dugg ci diina ji ndax ñoom nag nangu nañ yonent bi may na leen ay cadeau yu bëree bëree bëree bëri ci ñoom la alquran di wàcc aaya ja inna lisina yunaadunaka min warai lxujuraati aktharuhum laa yaqiluun su ko defee nag ndeysaanam nag lañ tuub dugg ci diina ji loola ñu nekkoon di ko caaxaanee ak yooyu yëpp ñu bàyyi ko kon loolu mooy délégation boobu nga xam ne tabaarakallaahu ñëw na délégation yi nak lañuy wara dugg ci ni bañ ñëwé yëkëti seen ya di di ko yëkkati ca kaw fekk la leen taxoon a jug mooy njafeel googu nga xamne japon nañ seen xalé ya seen jigen ñi ci jaam ta ki leen japon moy xoyentum no xoyentum no hisnin ñi ñëw timin nak waye bañ ñëwé tabarakallah seen discours kat ba wax discours am ba yonantu bi yoni xaysu bu def discours ci kanamam bañ paré seen sha'ir ba wax atari bañ paré bi sallallahu alayhi wasallam digal Hasan mu def qasida ñoom ñëpp ñu nangu ne porte parole la yonantu bee gën a for seen porte parole ba waaye timit discours katu par way katab yonantu bi moo gëna a for seen kat ba ñi tuub dugg ci diina ji moom la maam xalifay wax ne fa wafadat wufuduhum an kathibin wartafaat aswaatuhum an innabi xatta ida naadaal munaadi bisalaati wa hum yunaaduuna wara alxujuraati wa thumma fi lqur'ani ma qad sana'u wa rudda sabyuhum ilayhim ajmao seen njafeel ya leen taxoon a jug yëpp yonent bi delloo leen ko boole ko may leen xalal ñu yóbbu ko kon nag tabaarakallaahu maa ngi woon ak yow ci saraya yi waaye tabaarakallaahu léegi nag tabaarakallaahu ba tey saraya yi jeexagut waaye dafa sara sariyatu boobu ñu mujjee wax ci la bokk boo ma toppee suba ma ñëwee yow ci sariyatu ibnu aw jasata danaa wax ak yow sariyatu xutbata ila xasaamin danaa wax ak yow ci sariyatu daxaak ila qurataa yi xataa danaa wax ak yow cax ci sariyatu alqama danaa wax ak yow ci sariyatu bi yonantu bi yónni woon ñu war a dem mabbu sanami sanam bi ñu tuddee tay i xataa danaa wax ak yow ci sariyatu ukaasa ibnu muhassin yëpp nag bu jeexee ci lay saraayaa yi door di jeex yu fóor yi nag muy délégation yi door di ñëw yooya ba ca jiitu tabaarakallaahu mawaahib wax ko mooy délégation ba nii hawaasin bañ ñëwalee yonantu beeg la mu mujj danaa la ko wax topp ma suba ci waxtu wi inchaa allah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu